garmila Abdou Mawdoy baayam Safiyatu ñang mooy yaayam de garmila waaw waaw sunu góor ga baax ana soppey da baax ini tayan kantuwal axdaaru talqaana anal maniyata la daalu te daalu daxsana la xëy garmi la waaw waaw sunu góor ga baax maw day baayam sabiyatu ñaŋ mooy yaayam te garmi la daqa ca kaw baxroo ngi nii di yewen lu ma am si jaam yi la jëm dencul dërëm di dëqal ma ne mu laay da baax sa kanam jërëfët garmi la mooy yaayam ci Karmila mama Abdou Mawday baayam Safiyatu ñang baayam Safiyatu ñang mooy yaayam de Karmila soxna Njaay ngu Njaay biram xujjatam maale Njaay biram